الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومهوى الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala ñu ngi dénk sunu bopp ragal yàlla di leen ko dénk di fàttali sunu bopp di leen fàttali ci tomb bi lislaam di tuddee albir te mooy ak mbaax moom baat bi muy mbaax li bari tey ci ay jullit dañu jël firi bi yóbbu ko ci beneen façon te yàlla tabaraka wa taala moom baat bi def ko leeral yonent bi jàngale mooy lan baat bi rek ci arab bu ñu ko doon tekki danañ ko fekk mu nekk ismun jaamiun li kulli maanil xayr tur la boo xam ne dafa boole ëmb lépp luñ naan mbaax ci ay xeetam loolu mooy albir ñu ne moom albir mbaax ñu ne bu ci njëkk jullit bi mu yëg ne aqiida pas-pas la bu nit di fas naqiya xaalisa pas-pas la bu jullit di fas muy pas-pas bu set waaye buy këng moom baat boobu buñ ko doon tekki di ko leeral danañ gis ne dafa nekk fi qiyaami l insaan bi waajibihi naxwa xaaliqihi mbaax mooy doomu aadama bi jullit bi mu taxaw ci ay warigar yi ko war digganteem ak boroomam su boobaa kii ku baax la su jullit taxawee def waru garam li ko war digganteem ak boroomam ku séen kooku muy dox mun ngaa waat ne ku baax a ngi nii loolu mooy mbaax ndekke ndekke nit bala muy baax foog mu xam lan moo tax yàlla bind ko indi ko ci kaw suuf loolu mu taxaw def ko su boobaa lay baax waaye gis ngeen tey ñun mbaax mooy lan del joxe ku baax nga mënal waxtaan ku baax nga mënal kaf ku baax nga mënal reetaan loo nit ñi ku baax nga nit munta baax te digganteem ak boroomam baaxalu ko sa digganteeg sa boroom boo deful li la war képp ku la wax ne ku baax nga dalay nax rek baaxoo waaye saa yow wàcc ak sa borom li la war même doomu aadama yi bu ñu la séedeelee leneen yow sa digganteeg sa borom yow ku baax la mbokk yi kañ la doomu aadama di baax nag kañ lay def digganteem ak boromam li ko war mooy wa zalika bi imaani billah wala ngay baax foog nga gëm yàlla yàlla rek imaanan xaalisan min ashaibati shirki muharraran li nafsi min kulli ubudiyatin li gayrillah doomu aadama kañ lay baax mooy bu gëmee yàlla yàlla rek mu bañ a dendale yàlla kenn ak lenn bañ a bokkaale setal pas-pasam ci ay tilim tilimu bokkaale su boobaa doomu aadama bi ku baax la yaa ngi doog a baax ndeke kon foog ñu raxas sunu xol yi teewal sunu xel yi xam ne du nu mën a baax lu dul dañoo gëm yàlla kañ lañuy gëm yàlla suñu dindee suñu xel ak suñu xol ku dul yàlla tabaraka wa taala su boobaa la ñuy doog a baax mbokk yi bokk na ci li tax ñu baax mooy baaisan an ala taqwa wal istiqama wa hubbul xayr mooy foog ñu ragal yàlla foog ñu sax ci njub foog ñu bëgg lu baax jullit bu boolee ñett yi léegi lay doog a nekk ku baax soo ragalee yàlla lan mooy ragal yàlla mooy def lim la sant bàyyi lim la tere loolu mooy ragal yàlla imtisaalul awaamir wattinaabi nawahi jullit mooy koo xam ne bu yàlla santaane mu def bu yàlla teree mu bàyyi su boobaa am nga ragal yàlla ñaareel mooy pour nga baax foog nga sax ci njub al istiqaama foog nga sax ci amul tey ma dem julli suba ma toog tey ma saraxe suba ma toog tey ma jàng alxuraan suba ma toog tey ma def lii suba ma toog déedéet da nga ciy sax al istiqaama lu baax loolu ngay def chaque jour da ngay yokk waaye doo wàññi su boobaa nga doog a bokk ci ñooñu ñu naan dañoo baax ñetteel ku baax day bëgg lu baax kenn du wax ne waa ji dafa baax te duñ ko gis ci place yu baax yi duñ ko gis ci ñu baax ñi duñ ko gis muy wax lu baax duñ ko gis muy def lu baax kooku su boobaa kon mbaaxam googu ñu koy seedeel nan lay tudd mbokk yi mbaax dëgg yàlla mu ngi koy leeral nee na mooy ngëm yàlla goo xam ne du mel ne ngëmu yahut ndax yahut seen ngëm dañ cee boole leneen ndax dañ ne useyru doomu yàlla la ngëm dëgg du mel ne ngëmu nasaraan ndax nasaraan seen ngëm dañ cee boole leneen dañ ne Isaa doomu yàlla la ndeke mbaax kon baat boobu yàlla naan bir dangay boole pas-pas bu set boo xam ne yàlla rek ngay fas doo dugal keneen ak leneen ci sa xol yow jullit yàlla ne laysal bir an tuwallu wujuhakum qibala almashriqi walmaghrib walakin albirra man amana billah ngëm yàlla nee na nekku rek ngeen jubal seen xar kanam yi penku wala so léeg-léeg nga jàkkaarloo nit ne ko yow war ngaa xoolaat sa bopp war ngaa defaraat sa pas-pas war nga gëm yàlla mu ne la man jullit laa léegi laa génn ci jàkka ji wala léegi laa julli suba wala léegi laa julli tisbaar wala léegi laa julli takusaan wala léegi laa julli timis wala léegi laa julli gee pour ñun ku julli rek gëm na yàlla yàlla mu ne déedéet ku julli rek ku baax la yàlla mu ne déedéet walakin al bir lan mooy nekk jullit lan mooy mbaax mu ne man amana billah da ngay gëm yàlla gëm gu àndul ak rax yàlla kese yàlla kenn du ko dendaleeg lenn yàlla kenn du ko bokkaale yàlla rek yàlla nanguwul ñaar nanguwul ñett nanguwul leneen moom rek yàlla nee na man dama doylu bokkaale ku ma dendale kenn wala lenn ma bàyyi laa kooku ba ëllëg ma xool ndax kooku am na lu mu lay jëriñ bala ñuy mën a kennal yàlla foog ñu teg yàlla fa mu nekk ñu bañ ko dendaleeg lenn wala kenn xel yeeg xol yi xam ne moom kese la du keneen moom rek la keneen ku dul yàlla bisa ngi ñëw nga tim ci bàmmeelam xam ne kii du woon yàlla kon dañ ko ko doon tuumaal yàlla rek hayyun laa yamuut mooy dund te du dee keneen ku dul moom bisa ngi ñëw dinañ la dugal ci morgue bi yàgg fa ak yow génne la nit ñi sàppe ñu jullee la ñu suul la jant bi fenk so dara du wàññeeku ci àdduna bi yàlla rek su jullit fasee loolu nag ci waxtu woowu ci lay nekk ku baax ci lay nekk jullit ci lay làmboo pas-pasu lislaam yi gëm yàlla gëm malaaka yi gëm yonent yi gëm téere yi waaye gëm allaaxira su doomu aadama boolee juróom benn pas-pas yi ci ngëm ci mujj mooy gëm dogal li neex ak li naqari su doomu aadama boolee lii gëm ko muy juróom benn pas-pas yu mu war a fas ci waxtu woowu ci bis boobu ci lay nekk ab jullit ci lay nekk ku baax ci lay nekk ku gëm yàlla aqulu ma tasmaun wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwa alghafuru rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه والسراجا منيرا إخواني البر قيام الإنسان بواجبه بواجبه نحو مجتمعاته لا يخلو مجتمع من المجتمعات من البائسين والمحرومين ولهؤلاء حق في أعناق المسرين الذين يؤدونه امتثالا لأمر الله وتدحيرا لأنفسهم بقيت الله تبارك وتعالى mbaax dëgg suñ koy wax ci jullit buy dund ci société ne yëg ne moom jullit boobu du mën a baax lu dul waru gar yi tegu ci kaw loosam mu jëfe ko waru gar yooyu lan la société boo gis ñaar ñoo fa nekk ku am ak ku ñàkk ku wér ak ku wérul ku xam ak ku xamul ku mën ak ku mënul kon chaque jour pour nga baax yow jullit boobu waru gar yàlla gàll saloos yow mi am mooy jàppaleel société bi yow mi wér sa wér na feeñ ci société bi yow mi am sa am am na ko jullit ñi yëg su boobaa nga mën a nekk ku baax yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam nee na laysa minna man baata sabaan wa jaaruhu jaaya bokkul ci ñun ñun jullit yi bokkul ci man muhammad waa ji may bëgg a wax su jullee taxul mu bokk ci man su wooree bokkul ci man su ajijee bokkul ci man ñu ne yonent bi kokkal la mu ne ku fanaanoo sa dépense suba sa dëkkandoo nekk ci sa wet xiif yow bokkoo ci man nan leen càmbar sunu bopp tey ci kii yonent bi saa sam ne bokkul ci ñun tey bu ñuy xool société bi am na ñoo xam ne bu ñu añee du ñu reer bu ñu reeree du ñu ndékki bu ñu ndékkee yenn saa yi noonu la ñuy jaar lu ko waral amuñu mënuñu xoolal alal li ñuy yàq ci biir dëkk bi xoolal li ñuy yàqee xoolal ñu am xool leen compte banque yi xool leen parking oto yi xool leen immeuble yi ay jullit di fanaan ci mbedd bi xiif te yonent bi ne bokkul ci ñun ku fanaanoo sa dépasse suba ay jullit nekk sa wet xiif bokkoo ci man sallallahu alayhi wa sallam yonent yàlla muhammad nee na moo ñu ko nettali ci alquran yàlla bi mu ko wax ay nit dañu di dugg safara bi leen laajee yéen lu tax ngeen dugg safara maa salakakum fi saqar qaalu lam naku min almusallin wa maza aydan walam naku nutimu lmiskin yéen lu ngeen doon xoole ba dugg safara ñu ne ñun daawuñu julli dañ doon toog ci grand place yi rek dañ doon toog ci kanamu télé yi rek bu julli jotee suñu yoon nekk dañ daan toog ci stade yi rek di seetaan lamb di seetaan bëre ba julli bi jeex duñ julli ji tey loolu moo nu dugal safara ñu ne beneen groupe bi yéen ñu ne ñun daawuñu jox miskin mu lekk allahu akbar daawuñu jox miskin mu lekk yal na yàlla yërëm imaam ali radiallahu anhu wa arda woor na ba ngoon mu am daggitu mburu kopp kafe bu koot ndogoo miskin ñëw ne ko lu waaye man mun a jëlal mu continuer ndoguwul xëddul ñaareelu fan mu préparé ndogoom jaam ñëw lu waaye mën mu jox ko ko ndoguwul mu continuer enchaîner xëddul ñetteelu fan jaam ñëw mu jox ko jirim jirim ñëw mu jox ko premier jour yetim moo ñëw ñaareel miskin ñetteel asir jaam te ñoo ñett ñëpp bi mu leen di jox daf leen ne innama nutimukum li wajhillah yàlla rek bu kenn yëg man ak yéen ak yàlla bu kenn yëg allahu akbar laa nuridu minkum jazaan wala sukur bugg maa génn ci mbedd mi nga taxaw di ko wax yàlla moo may fay du yow jox ko daal dem yoon lu ngeen ci gis moo tax yàlla tabaraka wa taala fay ko bañ leen di jox innama nutimukum li wajhillah laa nuridu minkum jazaan wala sukur lan la yàlla mu ne wa waqaahum allahu sarra zalika al yawmi wa laqaahum nadratan wa surur daggitu mburu ñi ñu denc ay saaku ceeb ñi ñu denc ay armoire ñi ñu denc ay conteneur jullit ñi di xiif nga def hôpital gis ñu amul lu ñu faju gis ñu amul lu ñu lekk la ilaha illa allah te yonent bi nañu sallallahu alayhi wa sallam ñii li leen yóbbu safara mooy dañoo bañoon jox miskin ñu lekk kon jullit day am yëg-yëg bala muy baax day am yëg-yëg ci société ñu laabal société bi ci ñu ñàkk ñooñu ngir lan ngir ñun ñi am ñu laabal suñu bopp yonte bi yàlla waxoon na yonte bi xuz min amwalihim sadaqa jalal ci ñu am ñi seen alal jël ci sarax xuz min amwalihim sadaqa jël ci sarax ngir nga laabal leen loolu nga ciy jël nga koy yóbbu ci miskin yi loolu ñoom da leen di laabal tey bala ñuy mën a joxe ñu tànt tànt yu rëy kuy joxe day bind chèque ne nañ ko wax ci rajo bi man maa joxe nangam suñ ko joxewul sax mu ne nañ ko fàttali komos nit nañ ko fàttali man la diw ñëw naa yal nañ yàlla dimbali di ngi salu loo xam ne du yegg fenn te ba lañ koy xam rek ñu dugg bàmmeel dund bi ñuy dund ci kaw ak dund bi ñuy dund bàmmeel du benn fii lu neex nañ def waaye bu duggee fee lu waa borom asamaan ak suuf moo fa nekk foofu kamaatu diinu tuddaan li nga doon def rek moom nga fay fekk dañ lañ yàlla dimbali ci lu baax mbokk yi foog borom alal yooyu pour ñu nekk ñu baax ñu laabal seen bopp ci nay nay yonent bi nee na albaxiilu laa yadxulul janna ku nay du dugg aljanna wala xirs ak xër foqale ci alal tey ñépp a foqale looloo tax tey ñépp daw songu làmb ji parce que ñépp bëgg am looloo tax ñépp daw songu géej gi parce que ñépp bëgg am looloo tax ñuy jóg songu ay jaas di dóore di jël pour bëgg am boo bokkee ci ñi yàlla ne doo am da ngay sonn doogal noppalu liggéeyal lan la sant kër këril yàlla mooy may mais fal force damay am barsa wala barsaq alal bu bari wala bàmmeel bu sori allah xoolal xoolal xoolal slogan yi sax ñuy génne alal ju bari rek wala bàmmeel bu sori nii ñu alal tiitale ñun waa Sénégal xanaa xamuñu ne fii lañ koy bàyyi yàlla wax na ci suratu humaza gaa yi nga xam ne dañ daan dajalay jal rek yaxsabu anna maalahu axlada ñu yaakaar ne seen alal yi da leen fiy saxal yàlla ne da ngeen di dajalay jal bisa ngi ñëw ma jël leen ñu jal leen ma del si tas jal yi ñu jaloon jaale leen ñaata ñoo nekk ci bàmmeel yi ñu ñu jal bañ leen jalee ba pare dañoo dellu ca kër ya la ñu jaloon ñu jal ko fu mujj ku nekk ñu coppati ci jox la mu jeex ana ñoom liñ jaloon jeex na nan ragal yàlla nan dellu si xel suñu bopp jaamu lan ñu sant am am yàlla moo koy joxe wërsëg yàlla moo koy joxe wa ma min daabatin fi l ard illa ala allahi rizquha yàlla nee na lépp luy dukkat man yàlla maa koy dundal maa koy jox muy lekk maa koy financé picc yi ci àll bi fu ñuy liggéeyee ci yenn société dañuy lekk di naan musuñu dégg ñu grève muus yi ci kër yi Sénégal ba mu nekkee Sénégal ba léegi ay muus a ngi fi mënuñu ko fee jële muus ñu ngi lekk di naan musuñoo grève kaña yi ñu ngi lekk di naan musuñoo grève parce que yàlla moo leen di wërsëgal ñun dañu ne yàlla toogal sa ars nga bàyyi ñun ñooy góorgóorlu suñu bopp moo tax ñu sonn yàlla dana woon ne jaamu leen ma ma dundal leen ñu ne yàlla doonu dundal ñooy dundal suñu bopp te dun la jaamu yàlla mu ne dem leen moo tax ñu sonn ñun ñëpp sonn ñëpp a sonn dañ leen delloo si waat suñu xel suñu bopp yal nañ yàlla woon dëgg wërsëgal ñu topp yal nañ yàlla woon neen wërsëgal ñu bàyyi allahuma ixfir lana qabla al mawt warhamna inda al mawt ولا تعذبنا بعد الموت اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا على اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا على اجتنابه اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والصحبة والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وأقم الصلاة